asalaamaaleykum mbokki internet yi ñi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel ci seen euh, chaîne de euh, production sur YouTube Tawfekh Production tey ñëwaan mbégte teewaat fii nga xam moom moo di ci Géejawaay ku nekk xam ne ne ñu ngi liggéey ak euh, le projet lii di jàpp si cette plateforme nouvelle bi nga xamante ni dafa ñëw pour accompagner les jeunes accompagner jigéen ñi accompagner ñi nga xam ne mag ñi ak ndaw ñi bàyyiwuñu kenn si seen liggéey loolu waxal tey ji nag ñu am xew-xew bu am solo ñaar si xew yi sax bokk na ci dox diggante euh, lii di AFEP di kuréel gu lëkkale ay soxna yoo xamante ni si ndimbalante ak yokkute la ñu yëngu waaye tamit euh, bokk na ci li nga xamante moom moo di joxe ay lijaasa lijaasa yooyu nag bokk na ci te ay soxna yoo xamante ni euh, tàggat nañ leen ci diirub ñetti fan naka lañu ñu mën a fexe ba Euh, am li nga xam moom moo di leadership leadership nag ko waxee mooy euh, loo xamante ni da nga fexe ba nekk kuy mën a jiite kuy mën a tekki nit ñi si yoon giddi leen euh, li ñu koy waxee ci français en termes empruntés en anglais définit la capacité d'un individu à mener donc ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs muy nag leadership waaye tamit communication naka la ñu mën a jokkalantee naka la ñu mën a def ba di déggante di waxtaan seen biir loolu nekk li nga xam ne mooy formation bi jox leen lijaase waaye duñu leen leen boole leen itamit ci projet yi xam ne ñu ngi koy def jàppale leen ci di leen ci accompagner waaye euh, lii di convention bi bokk na ci tamit fexe ba euh, ñoom ñu lëkkaloo liggéey seen biir i tamit kenn ku ci nekk mën a euh, jàppale sa morom jàpp si nag ñëw gunge i tamit ñi nga xam ne ñoo di kuréel googe di AFEP ñëw lëkkaloo ak ñoom ñu yore seeni i waaye tamit ñu ñëw nekk en activité fexe ba lépp loo xam ne mooy la ñu bëgg ñu gunge leen ci seen liggéey seeni projet ak seen li xam ne moom moo di rek entrepreneuriat wala bokk lépp lu ñu yëngu diplôme yi euh, gis ngeen sànq monsieur Sène moo def présentation bi ci convention bi euh, jëm ci euh, li nga xam te moo di xaatim bi di signature bi waaye ci noonee nag daañ leen di def li nga xam te moom moo di remise de diplôme yi jox ko seen borom bu ñu paree tamit daañu taataan kàddu parrain bi ndax ku nekk xam ne parrain bi itamit ñëw na mi nga xam te moom lañ ko moom la ñu tuddee li nga xamante moom moo euh, moom moo di rek euh, docteur Sène di docteur veto la ci euh, projet plateforme jàpp si waaye tamit ginnaaw bu mu joxe diplôme yi dina am di Babacar Faye responsable marketing yi tamit dina joxe diplôme bu ko defee bu ñu paree leen taataan seen i kàddu seq ak ñoom laaj ak tontu waaye tamit ñii di bénéficiaires yi soxna yi nga xam ne ñëw nañ ngir i tamit jël seen i ay lijaasa ñu waxtaan ak ñoom naka la ñu gisee projet bu bees bi ñëw jàppale askanu ci wàllum suqaliku ci wàllum développement kon ñu bàyyi leen ñu woy liggéey bi def remise de diplôme docteur donc moom la ñuy woo mu def euh, remise de diplôme jox ki nga xam te moom moo di Awa Diouf euh, mi nga xam nag moom it euh, tabb nañ ko ci lii di lijaasa yi Awa Diouf anamu lii nii bismillah voilà merci beaucoup et bonne chance également pour la vraiment suite yàlla na si yàlla def xéwal moo di Aminata Louisa Somé moom it am na lijaasa anamu tàccu leen ko bu baax a baax dañ koy immortaliser waaw. et merci et bonne chance également yal na ci yàlla def xéwal. tàccu leen ko bu baax a baax waaw. merci beaucoup et bonne chance également pour la euh, vraiment suite yàlla na si yàlla def xéwal. tàccu leen ko bu baax a baax dañ ko immortaliser waaw waaw merci beaucoup maa ngi profité ci occasion bi remercier encore une fois jàpp si euh, lii moom mooy euh, source développement un développement local en fait fii la mën jógee on parle souvent di wax ne secteur informel secteur informel alors que peut-être ni leen tuddee moo dul ñu leen war a tuddee lii c'est des très petites entreprise te ñooñu véritablement dañ leen war a formaliser leadership bi ngeen leen defar ak plaidoyer bi ngeen leen di jàngal ak euh, management bi ngeen leen di jàngal ça leur permet de mener à bien leur petite entreprise et loolu moom moo am solo et ñooñu ñoonu bu doon euh, bari nañ fi ci gox yi je pense que dootuñ jooy chomage bu ngeen ko démarrer nag si ay femmes. vous avez trouvé la transversalité dëkk soo ko bëggee développé soo fa demee li soo buggee gis loo xam ne ne formel na nga war fa jaar pour développer développé ko si ñaari yëf la bi gën a am importance ce sont les ce sont les femmes soo leen demee fekk nga leen ñuy organiser wu. donc li nga ci mën a jaar véritablement fekk leen ak seen organisation ci base boobu nga mën a mën a initier ay entreprises beneen bi mooy xale yi et je pense que ku jàpp ci xale yi. jàpp ci soxna yi je pense que dëkk boobu mën na jëm kanam voilà merci merci. vraiment merci pour votre présence euh, donc dañuy woy liggéey bi rek maa ngi wax keroog euh, Seyni ne ko euh, liggéey ñu bëri danañ ko yor mais dañuy ñàkk ku leen gunge ak ku leen wan yoon wi ñuy jaar ndax boo bëggee ñëw kii jaay fii teg fataaye di jaay nga ñëw tegaat table di jaay fataaye ñëpp di jaayandoo fataaye da jaxase waa koñ bi doo xam si kan ngay jëndee fataaye waaye bu kii di jaay fataay da ngay jaay mburu sa wet ga wala nga jaay leneen loo xam ne saf safa la dana ci ànd donc problème d'organisation la ak de leadership ak management ak naka nga mën a liggéey mais boo Sénégal booy xool da dem bu ñu paasal place yëpp karo la ñuy jaar doo xam kan mooy kii donc kii day xëy jaay taabalam buntu bi keneen ne suba naa defar taabal jaay ndékki ndax mi ngi jaay ndékki donc problème d' organisation la mais am nañ jom gi am nañ ful kii bi bëgg-bëgg bi mais il faut ñu xam ban yoon la ñu mën a jaar pour dem liggéey donc dañuy woyal liggéey bi ñu woo euh, kii di euh, Babacar fay ku Aysata jaañ waaw Diagne naar la wala ban jaañ ah est-ce que tàccu leen ko woog <laughs> alpulaar yow kon séeréer yi ñooy sa buur de Faye yow yaay buuram de yaa koy jox <laughs> sa buur moo lay jox. alhamdulilah <laughs> yal na ci barke topp xéwal. merci merci beaucoup euh, Fatoumata Nagou Sow alpulaar de ñu ngi defante moom waa kaa jëlal ko jëlal ko ok jëlal taxawal bu baax ok yàlla na ko jik et enfin As Malick Ba waaw ah. lii mooy lii mooy lii mooy lii waaw ah, El Hadji Malick bisimilah est euh, macha allah. Hmm. ah waaw moo tax ma ndeysaan xoolal lii rek hasard amul <laughs> hasard amul hasard amul yàlla na taw fexe kon yaakaar naa ne loolu jeex na euh, mu nekk li des mooy signature bi mooy xaati mu déggoo bi convention pour wéy liggéey bi ak yeneen information yoo xam ne tamit di ko soxla ngeen ko ak yu ngeen war a ñoo jox parce que ndaje moom nit ñi fay daje bari nañ am na ñoo xam ne eh, yow may wax sax ëppoo leen xam-xam mais weccante aliwo la rek kenn ku ci nekk li nga xam te sa morom xamu ko nga dimbale ko ak li nga xamante ni xëy na boo ci gëstoo laajte boo ñibbeekat doo am problème ndaje nag li ci gën a garaaw mooy lu ñëpp wax rek baax na boo génnee tamit yaa ni problème donc kenn ku ci nekk xalaat li nga xalaat wax ko wala boo boo ko mënu wax it waxloo ko nit mu wax ko euh, yaakaar naa pour am information bi leer donc monsieur Faye également vous avez la parole pour quand même exprimer euh, vos sentiments par rapport à cette euh, cérémonie de remise de diplôme à l'issue d'une formation de trois jours. asalaamaaleykum maa kenn ku ci nekk sa tur sa sant di leen bu baax di leen xamal ni vraiment man li ma li ma jaaxal rek mooy tur bi association bi bu boo mooy jàpp si. bon en fait euh, yéen ñëpp kenn ku ci nekk su ci jàppee dem indi ñeneen jàpp ci su yàggee mu yokk ah su yàggee mu yokk maanaam mbooloo mooy doole ah et puis euh, soo demee ci ci lébu yi ah dañuy sànni seen gaal suñu sànnee seen gaal sànni seen joowukaay ah sànni seen nappukaay mais buum bi nga xam ne moom la ñuy yor du benn nit doo nga koy yor te buum boobu dañuy fexe mbaal gi génn kon buum boobu dañuy fexe ñun ñëpp ñu jàpp ko ngeen wit ñeneen ñi ci sinon su leen rawee day raw seen morom ah kon ñaan leen yàlla buum boobu ngeen téye ko bu baax a baax a baax xam ne jàpp si bii man vraiment li mu fi gis doy na ma yàlla na leen suñu borom suuxat ci barki alxuraan yàlla jàppale leen eh, ku fi indoon jafe-jafe yàlla na ko jàpp si génn ci barki alxuraan waaw ah, def ay xéewal saayir ak baatin ngeen ànd nekk benn entente mutuelle nag mooy defar ànd su amul rek àndul du waaw du am heureusement man ba ma gisee ci ñoo xam ne dañoo dañoo am Pastef ah ñoo xam ne ñoo ko jiite man sama euh, vraiment am naa ci yaakaar daal waaw yàlla bu yaakaar tas yàlla leen suñu borom defar bu baax a baax a baax. Euh, maa ngi tudd Aminata Somé Aminata Somé. waaw ba ma jotee diplôme bi defuma lu dul kontaan kontaan si accompagnement bi ñu waa jàpp si di accompagner. Euh, formation bi macha allah nekkoon formation de qualité et de haut niveau euh, sur le plan de du leadership et du management di loo xamante ne day mot dañuy mottali ñun mottali suñu connaissance e ñu jàppale en tant que entrepreneur en tant que jeune femme euh, battante et tout donc franchement am ñu seen fay. am ñu seen fay ñi ngi jàppale jeunes yi ñi ngi leen accompagner ñu ngi def liggéey bu jéggi dayoo macha allah. Euh, bon message yi bi may lancé jeunes yi mooy euh, ñu gën a dëgër gën a kii et ñëw adhéré si jàpp si ñëw adhéré jàpp si aussi euh, bon bëri na na opportunité yu fi am donc nañu ñeme ñëw jàpp si joxante loxo voilà wàññi <laughs> c'est ça surtout wàññi foo bi te yokk liggéey bi. wàññi foofu te yokk liggéey bi waay ok. bon euh, ñu ngi sant yàlla di remercier euh, waa jàpp si di kontaan ci recevoir suñu diplôme après une boo xam ne ça a été très très très enrichissante waaw gis nañ suñu bopp bu baax parce que maanaam management ak leadership dafa nekk loo xam ne dafa am solo ci ci maanaam euh, vie acteur boo xam ne dafa bëgg émerger dafa bëgg suqali boppam. maanaam liñ la ciy jàngal di nga ci gis sa bopp bu baax bon message bi may lancé sama camarade jeunes yi mooy euh, ñu soobu ci liggéey wàññi TikTok yeeg Facebook yeeg WhatsApp yeeg <laughs> Instagram yeeg yeneen ñu soobu ci liggéey bi ñëw euh, approché structure yu mel nii comme ça ñu teg leen ci yoon bi waaw message boobu lay lancé sama moroomu jeunes yi voilà ok merci beaucoup euh, Babacar Mbaye Takane Gning bu mbokk internet yi nga xam ne yéen doon bàyyi xel ci seen chaîne de production TP euh, ci euh, YouTube bi euh, donc lii moo nekkoon. xeexoo bi amoon fii ci Guédiawaye ginnaaw bi nga xam ne ñëw nañ fi keroog doon def benn euh, benn prise de contact ak li nga xam ne moom moo di euh, cette nouvelle plateforme qui vient à point nommé pour quand même accompagner les femmes davantage mais également les jeunes dans l'entrepreneuriat et dans le leadership tout euh, vraiment c'est c'est quelque chose à saluer nekk loo xamante d'une dimension internationale tey jii ay doomi Sénégal yoo xam xamante ñi ngi si bitim réew jàppalante boole seen seen waajur yi fii ci biir seen i rakk ak seen i euh, mag ngir nag fexe ba euh, jàpp ci ba suqaliku kon jàpp si mi ngi noonu na ci ñëpp jàpp mu jëm kanam kenn ku ci nekk boo demee jàpp sa morom si loxoom indi ko yaakaar naa ne mbooloo mooy doon euh, sa yaakaar ni ko alxuraan waxee li nga xam te moom moo di rek aljamaatu rahma yërmaane gi am ci mbooloo yaakaar naa amul feneen kon nañu def benn say liggéey ensemble Sénégal jëm kanam wasalaam